<laughs> ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog téléspectateur yu Sen TV auditeur du Zik FM internautes yi nga xam ne ñu ngi ci suñu ay plateforme digitale mhm. ñu seetaan sa digganteeg mi yaa gisee dinaa ci ñëw ci kanam ana ba dindi sama baat bi bala maa wax ba pare lii <laughs> maa xocc sa mbàjj bi rek mën na la mën na la teree wax pourtant mbàjj bi am na ñaari kilim ci poqotaan yi am na ñaari ay kilim waaw patron moom patron moom ko defaral mooy lu xonk li ñuy jaawaleeg Iliman Ndiaye sax bi ñu ne ma xam Elimane Ndiaye sa pat sa kii. Euh, nduru la Elimane Ndiaye. ah doy na waar daal chaque jour ñu ngi naan ma sa patron bu dee Elimane Ndiaye la nañu wax bu dee ay seex la ñu woon ñu réeroo. Euh. nañu waxtaan. kan ak kan. nee na Elimane Ndiaye nduroo wuñ. Ah, yow Elimane Ndiaye laa ko tegoon man moom laa ko tegoon même man. moom laa ko tegoon engagé chaque jour gars yi na ma engagé sa patron bu dee Elimane Ndiaye la wala ay seex lañ sa engagé bi nag tey leen ngi koy doo ko xam mbokk bu réer la demoon nga jubóole leen. <laughs> mais est-ce que dara mi ngi. Ah. boo gën a gu bokkuñu man mais tey xanaa demoo match ba tey xanaa demoo match ba Sénégal Cameroun. Sénégal ak waaw. mais war a dem match ba topp engagé. war a dem football yi Sénégal Aliou Cissé woo la. nga ñëw topp engagé. kii ba mu toppee engagé la am natt ci àddina am. ah mu toppee engagé ah. la am na day bàyyi bal bi. <laughs> day bàyyi aar bee dàq fay. mais ci loo ne. maa ngi sant yàlla bu baax Alima. yaa ngi am jàmm. di la sant di sant waa Sénégal nag. Eh. di gërëm waa adduna bi yëpp. di am contentement ak mbégte ci teew bi ma teew. Mm-hmm. ndax nag siis bi ma toog ku ne toog na fi. dëgg la référence bu ne toog na fi. dëgg la célébrité bu ne toog na fi. dëgg la waxkatu lu baax bu nekk toog na fi. dëgg la te Alima dafa nekk jëmm joo xam ne. Mm-hmm. day jàppale jeune yi. xaw na baax tuuti rek. barki Xalifa Malick. xaw na baax nit ku baax la ba pare nag ñu bokk Sini Faagay Demba mi ci jawaar bokk Serigne Babacar si mu doon jëmm joo xam ne mënuñu ko séddoo man ak moom ñu bokk ko doyloo ko kon Alima dañ lay remercier ñun seen yi nga xam ne yaa ngi ñuy may loxo di ñu jàppale parce que mm-hmm. tamit yow defe naa ni li ma wax léegi rek sa siège bi ku ne toog na fi kon tey bu mu fi indee sa baax la ak sa yëg doomu aadama mm-hmm. ak jàppale bi nga bëgg jàppale jeune talent yi di la ñaanal toog na fi mi yaa toog na na bi ma ci gën a marqué mooy bu jeelaa parce que Dieyla toog na nga ne ko Dieyla dama dégg sax ñu ne yaay joxe dépense sa kër mu ne waaw. <laughs> mu doon kàddu gu ma bu ma roy. wóor na yàlla. mais fii da nga sérieux quoi. billaay dama wax nii ci Dieyla da nga parce que man sax su ma xëy maa ngi dolli téeméer sama jabar mag parce que lu togg lu baax. bu doon mi ngi togg lu baax sama eh, mooy sa jabaru mag bi nga xam ne moom. bi muy yàq rek. futti xaa ko futti xaa ko te lundi futti mardi xaa moom mënul plan national am suñu ceebu jën mënu ko mu dem voyage di togg te man dama yaakaar ne est ce que. futti xaar ko est ce que kii bi nekkul 1000 francs parce que 2500 lañ koy jox dépense. ma compte 2500 yi. nga dolli ñaata téeméer laa karam dolli waaye bàyyi naa ko. te bu guddee lay taal a jëkkër cuuraay santang. santang jëkkër ji daa asma. saxaar si bu taalee yëf yi demee ni fii lu saa buñ dugal ci ànd bi. te jëkkër ji noonu la amee courage xam nga réew mi nag ku fi juddoo di nga am courage. Ah, dëgg la ndax ku xool ci alo mbaay. <laughs> ba mu jàppee ba tey gën naa engagé nag. mais engagé <laughs> engagé man déjà engagé ak Mia Guissé engagé lan la sa problème ak Mia Guissé mhm. engagé Mia way bi nga xamante ni nii euh, euh, euh, moom la moom la woon ci jamonoy maabu ak noo face waaw xaalis waaye am naa mhm. dignité waaw nga ne Mia ci ginnaaw la doon taxaw Mia ci ginnaaw man yéex naa xàmmee kanam Mia <laughs> mu jëlee yoonu boppam laay doog a xàmmee réellement ma ne laay nekk ci c'est une fille ñu yaa ci ginnaaw la daan taxaw naan maa bo xoola kolu nag bu ko defee ma naan kii xaaju kanam gi rek kay jé ma naan maa bo man aw ma xaalis aw ma oto waaye am naa dignité man aw ak yam ndeysaan ma naan kii kan la kii kan la kii kan la am na way boo xam ne ci ginnaaw la ko waaji teg waaji naan ko yow yaa tax sol daal neex yaay sama kawas ma ne ko kawas ak ni mu gaawee kamambeer <laughs> yow laase sax nekkatoo ko ci mi yaa laase guddi ñu toll mi Mia ah, yooyu Mia ah, Diva Sib da koo jëg de Mia ah, mu génne ci sëy bi xol dund naa dugg naa ndax yow doom ndeysaan nit ñi naan nañ leen jubóole Mia way na wax way bu neex de waa bi li ma ci gën a métti mooy préparé ko bindu ko kan la waa ji bi muy tontu Mia daa xëy suba rek dajale ancien photo yi woo caméraman yi taxaw montagne mamel bi <laughs> montagne mamel bi la taxaw ñu filmé ko mu naan man kan laa ci war a waxal ay sata wala Mia bul fàtte bëggoon naa laa mane ne xam naa danaan xam nga waali daa rafet xool te nga waali woo leen jubóole leen mu ne waali daa rafet xool mën nañoo jubóole xaaral ma génn waay yërëmtalu far yàlla mi yaa xam lu de mi yaa da ko bàyyi ba wooy ba pare mi yaa dem massa zeng jënd ji ensemble la ko tuddee nee ku jëkki jékki nekk ci digg lëndëm daal yàlla jékki-jékki taal mi yaa na yàlla taal la lamp yi la ilaaha illallaah la mi yaa tuddee lëndëm sawaay borom verre yi nu fii ne te mel ni mécanicien soudeur boo nee nii rek mu sol vert taxaw ci kanam sikkim bu désordre bi waaye léegi mi yaa am na jàmm de. mais engagé. te mi yàlla man li ma jaaxal mooy ah, moom. Ah, moom yàlla mi kii ba pare di xas euh, borom vert naan ko. sama jamono mi yaa ngi xale bu njëkk baa ngi. macha allah dégg mu ne jamaaleem la. xoolal sàkkar yàlla bi. ah ok. kiir baa ngi ni. bi bokkul ak yëngal yëngal. bii bokkul ak yëngal yëngal wala bii la. Hmm. moom nga dégg yëngal-yëngal bi bii la li ma tëj gémmiñu bépp alwaxa liggéey xëppi xool sa kaw tal ñu ay foo ay vala vala on est ready kindu ñu ne maanaam ah safara bi la jaaroo këriñ bi ne te fu mu jaar nag laa xaale waa këriñ la ko tuddee di këriñ ba leen noir fumé yooyu lëndëm bee lëndëm bi noir fumé te benn xol première son bi ba muy jeex cax na ko nee na ko sabo mi naan naa nii te kili netti njëx gën a gis loolu cax la fekk lii la ko doon wan xoolum yàlla ñu nekkee ci forme. waay ah, mais mais mais mais mais mais bi nga bi nga commencé. Mhm. Euh, di def délire yi ci TikTok. sénégalais yi dañ la commencé bàyyi xel dëgg. Mhm. mais sénégalais yi ñu ngi la gën a bàyyi xel man ci sama seetlu meloo xaw ma ci mhm. pas ci bi ngay tooñ mi yaa gisee. parce que woyu mi yaa gisee bi nga xam ne moom moom ngay wax nii. naan aw ma xaalis waaye am naa dignité. boobu sénégalais yi dañu foogoon yow yaa ko créé. yow wooy boobu yow yaa ko jaay en fait. foo ko lokkatee te pourtant si seen ay répertoire la woon. jamono bi maabo waaw jamono bi maabo la woon lu yàgg. foo ko lokkatee. man li nga wax nii yi. Eh. dugal bi daal ne mu ne engage wax na dëgg de daal di dugal seen wayu maabo kii dignité bi. Eh, dignité bi ñu ku nekk ma dugg si commentaire yi ku nekk naan mu ne engage wax na dëgg de mu ne lii way la de moom ñu bëri fooguñu woon ni que ñoom way nañ way bu mel nii. ba ma ko seetaanee ma ne way bi daa correspondre ak situation yi mu yaa nekk bu njëkk bu njëkk ni mu daan taxawee ci ginnaaw kool ah, nekk ci ginnaaw mais maire bu jaay yaa taxaw ci ginnaaw rek waa xoolal talent bi léegi ma dignité après nag ci laa gisee ni nga xam dem loxati ko quoi fu ma dem sax eh. spectacle su ma fa demee war a jouer sax damay dégg xale ci suuf ñu naan man aw maa xaalis waaye am naa dignité foo mënti jaar xale dinañ ma ko def loo mm-hmm. su ma ne woon damay indi leneen sax jox ko gars yi dinañ ne ma defal Mia bi ma xam ne bëgg nañ eh, ma ne eh. xaaral ma xool clip bi Mia mi ngi toog ci benn glacière après Mia clip bi am na fi muy jaayee ay fruits bana banaana bi pour tournage de woon avant tournage bi di jeex Mia lekk na banaana <laughs> nakati Mia daa koy fóon ndox mi sase ndox yi 1300 la jaay waa ji nangu 1000 francs jox ko 300 yi ne ko jënd ci xale bi kuus <laughs> bilaay mi yar sonnoon clip bi boo xoolee xool mi yaa nim koloo toog tiim glacière bi nga xam ne glacière bi sama maam moom la daan jaayee këram arabu ustaas Ndiaye glacière ma kii kii nga ne banaana bi nen mi yaa bi ba jeex lekk na banaana mi yaa lekk na banaana dafa xiifoon seetaan leen di pour tournage da koo lekk ba mu jeex mujj gi dañoo dem boo ma resee jëndaat banaana indi tournage bu metti sax mais lépp <laughs> yaa ko jaay nga jaay nga répertoire Mia c'est-à-dire mm-hmm. pour dire vrai mm-hmm. répertoire Mabo mm-hmm. ba Mia jaay nga répertoire macha allah sénégalais yu bari ci yow la ñu découvrir paroles yi ci yow la ñu ay yenn morceau morceau Mia yu bari même yu bees yi nga xam ne génn na ko am na yenn paroles yoo xam ne bi nga ko waxee yow ci sénégalais ci lañ dawaat déglu euh, son bi xam ni yooyu da nga koo wax mais Mia gisee naka naka la apercevoir loolu nu mu ko gisee Mia ndeysaan <coughs> daan naa dégg nag ba benn jour ma dem tournage cité kër góor gi. mu woo ma ay heures yi rek mu wooma ma téléphone ne ma man la Mia ma ne ko miyaa man mu ne miyaa gise ma ko naa pelente ñëw mu ne ma noonu du pelente engagé dama lay remercier rek dama kontaan mu wax wax yu rafet ne ma vraiment li ngay def dafa neex parce que dépassé wu defoo dara te wax mm. dëgg yàlla am na ma kontaan naa trop nag après dina am lu ma lay yónnee mais mm. jàppal ni bis ni ki man seen mm. nit laa lépp looy defati nag ma ko wax lépp lu may duggati ma wax la ko ma coupé ak moom ndeysaan mu yónni ma xaalis bu bari te jour boobu ba tey duñu ñu gëj di déggante dañuy mm-hmm. déggante mm-hmm. bu amee lu muy waajal ne ma lii laay waajal lii ak lii ak lii ñu ciy déggante te mm-hmm. vraiment loolu dama ko rafetlu parce que àdduna moom du nit ñëpp nga mën a satisfaire te du ñàkk ni même bu dee benn moo benn bés juum naa ci mais miyaa léegi nag comme comme wax day tingoom seede maa ngi en direct ak Mia Guissé Mia moo ngi en direct ci téléphone bi <laughs> <laughs> mais Mia ñi ngi <laughs> ñi ngi lay nuyu yaa ngi en direct sur Sen TV Zik FM ah maa ngi leen di fay bu baax a baax. ma maa ngi ak melo waaye maa ngi ak engagé sa góor sa xarit. <laughs> sama copain. <laughs> maa ngi mhm. ziar alors tey moom la ñu invité mais li ma wax uh-huh. léegi sénégalais yu bari découvrir nañu euh, répertoire mi uh-huh. Mia Guissé moo xam bu yàgg wala bu bees. Euh, ak texte yi euh, yëpp grâce à engagé mais naka nga uh-huh. percevoir li muy def bi ñu la ko njëkkee yónnee xam naa sénégalais dañ koy capturer di la ko yónnee. non mais waaye ouais, c'est vrai noonu la demee dañ ko doon capture dama ko yónnee. Mhm. mais euh, dama ko recevoir ak beaucoup de plaisir. Mhm. parce que en fait lui c'est c'est une personne boo xamante ne dafay daf may daf may reetaan lu grave grave grave. c'est vrai donc donc plaisir la woon euh, mu koy seytaan mais gis aussi muy faire découvrir des choses yoo xamante ne réaliser nañ ko woon.